Yo, yo, dafa mel ni kii da la bëgg piqûre de. non mais xoru xar ma neex rek. Karim Karim c'est Karim c'est mon frère Karim vraiment c'est c'est mon frère de cœur qui euh, pas dégg naa Pa Moussa Qui euh, dit euh, Mustapha, qui euh, mu ngi mutation sociale mu nek vraiment lo xamné ne nañ ci tek baram mais dama bëgg aussi bala ñu dugg ci li nga xamné mo nek nekk sujet d'actualité campagne bi ñu wax ci les qui programme moi je je je dis des professions de foi bande lecture nga ci def est-ce que c'est des programmes réalistes et réalisables bon en réalité ñëpp tëbandoo tëbandoo la woon. oui tëmbi tëmb la woon. ñëpp tëbandoo parce que ni ko Pape Moussa waxee euh, am nañ fi droit ay programme yu baax. Euh, yu réalisable waaye am na fi ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla lañ doon bind lañ doon bind lu la neex. Hmm. parce que am naa programme am naa programme rek damay seeti ci sama ñaari nit ñoo xamante ne kenn ki c'est un économiste seeti ji keneen ak keneen ak keneen. Hmm. ñu toog bindal ma loo xamante ne amaana su ma ko bindee dina neex ma ñëw di wax te hmm. waxoo budget bi noo koy defee. Euh, fu mu jëm si durée bi yooyu yëpp waxoo ko. Euh, donc ma jàpp ne daal bëri na si yoo xamante ne dañ doon def programme pour programme. ñenn ñu bëri programme pour programme am na ñoom nag réforme yu bëri ñoo ko bokk am na dénominateur commun la fu ci mel justice ñoom ñëpp hyper présidentialisme bi mhm. dañu dañ koy dindi manam président bo xamne da fay am doole bu mu upp ñom ñep dañuy taxaw ñu dañ koy dindi lu melni justice bi dinañ fexé ba mu gëna libre yo timit da ngay da ngay dégg ñu def ci ay proposition mhm. lu melni agriculture bi boo fa da ngay dajé ñom ñep nga gis né pratiquement même proposition ñoy ñooy fexé fexe ba renforcer matériel bi baykat bi fexé ba sentir boppam terre bi mhm. ñu fexé ba indi ay ay ay ay doxalin bu bees yo xamantene domaine bi baykat bek ñoon dañ ci gëna gis seen bop donc grosso modo bo xolé programme yi excepté benn ñaar ñatt bo jëlee exemple Serigne Boub mom def na ay xalaat yu am solo yo xamanteni mi ngi ko jëmale ci walum daara yi mm. case des tout petit mu réformer ko am nu mu ko tëggee euh, ba alcorane bi dina am nu mu ci duggé mm. ñay jàngale am nu ci duggé donc man côté éducatif surtout je pense que programme la bo xamni ki kii ñëw war na koo jël xol nu mu koy intégrer euh, bàyyi ci xel ci yenn Bassirou Diomaye bo demee juge des libertés biñ ñu bëgg dugal mm. yooyu ñoom Pape Moussa dañ gëna mëy mieux placé euh, pour wax ci procureur mérite mbatti rek procureur dóor la ci kasso bi lolu mëna na doon ay ay ay coppite yo xamanteni mëna ko indi anta Babacar ñëw na aussi tamit ci lu jëm ci wàllu liberté de presse bi naka la ñu war a gën a mën a ba renforcer ko donc ku nekk rek boo yëree di nga gis ne am na touche bu ndaw boo xam ne apporté na ko maintenant dama yàgg di wax nag ne euh, sénégalais seen vote du boo xam ne vote boo xam ne dafay voté programme mm. loolu il faut que ñu bàyyi ci xel mm. parce que programme boo gisee sax ni ñu ko defee ñëpp sànneendoo ko mel ni dañu xam ne pour ñoom ba léegi dañu jàpp ne c'est l'affaire d'une élite mm. maanaam élite bi ñaata programme ñoo taxawal tey boo taxoon fi ne ku liiru benn programme jàmbur mu jeex kenn du añ ci Sénégal. c'est sûr c'est sûr. ñu ci bëri da ngay xool chapitre yi lay intéressé wala nga dem taxaw ko lire dafaat na taxaw li parce que ñaata candidat 19. mais finalement est-ce que nekkul c'est là où se trouve le problème parce que nit ki aussi euh, boo ko naree sant liggéey euh, c'est sur la base euh, si lu mu lay proposé. non mais Macky Sall yoonu yokkute lu ñu jaayoon. certes après bu mu ñëwee lu mu ñu indi. le plan Sénégal émergent donc pour vous dire que c'est pas évident que programme bi nga am bi ngay ngoro mom ngay hmm. c'est pas évident Nous, hmm. li wax toujours ak li nga du ben nous hmm. ñu bari duñ ci baye xel duñ ci duñ ci dor sen dom nous lan le profil du candidat candidat moy son discours et son parcours discours candidat bi cadre yi ndax parcours am jaar-jaaram ndax dal na sama xel ñaar yooyu bu dalee sama xel ma votel ko moo tax la plupart du temps du temps dañ le vote sénégalais il est plus affectif mm. maanaam vote yëg-yëg la c'est vrai waaw man da ngay gis koo xam ne dafay voter nit parce que dafa naan non dama koy parce que dafa yaru mm-hmm nit voté nit non dama koy voté parce que liñ ko tooñ dafa bëri dama koy yërëm. nit voté nit parce que parce que parce que parce que mais bo xolé toujours rek dafa subjectif. Mm. amul newna ki ñew ñëw non dama lire programme wu c'est béton. <laughs> programme programme manam nangam ak nangam ak nangam donc loolu mu dafa jafé nga gis ko. loolu motax légui politiciens biñ bi comprendre loolu ñu sonatuñ ci wàllum programme légui ah. léegi dañuy def temps bu gëna a ci wàllum sen image sen parcours sen jaar-jaar naka lañuy def ba électeur sénégalais bi accepter leen adoubé leen te loolu bo xolé toujours dafa dafa bokk ci loo xam ne ko liggé ci benn fan wala ci ñaari fan. Mm-hmm. wala ci ñetti fan processus la. Mm-hmm. da ngay door am lo wane ñu bayila la xel. Mm-hmm. xanaa xamoo tey jii boo gisee ñu bëri euh, ma doon euh, makoy wax mané ne euh, Pastef mu am limu am ni tey jii mais plus forest la démarré c'est que c'est la ñorul rek duñ koy euh dafa ñor tab bi gëssamuñ ko rek mu wad mais ku démarré plus forest nga jóge fa dem élection présidentielle am 15 en njortu dem élection présidentielle par euh, les favoris. Mhm. mais attention yone Idriss Seck bu mu joggé dafa am ñaata 14 après dafa wat mm. am ñaata 7 mhm. coalition mak am 20 on sait pas nga gis ñu bu joggé ci bokka bu mu dem doole lool après dafa mhm. euh, parti nga gis ne kon toujours première sóob bi booy doog ay génne day ay sóobu mag lay doon mais dafay jafe nga sóob nga def sóobu mag taxaw fa mhm. foofu nag la ñuy xaare parti Pastef bi parce que gis nañ ne engouement be lépp mi ngi mi ngi mi ngi avancé di bouger di jëm kanam mais daal li ñu mën a tënk ci ci ci ci programme yi rek mooy d'abord élite bi ñoo ci gën a bàyyi xel mhm. ñi nga xam ne ñoo ko doon bindul wala ñoo ko doon def ñu bëri tey ji boo leen si interpellé gis ñooy non euh, dañ ma déggul bu baax wala nangam ak nangam mais bu doon programme daf ñu soxal wala dafa soxal suñu élite yi wala ñenn mais pourquoi duñ def ay débat mm. débat toog candidat entre candidat wala deuxième tour bi est que dégg nga fii kenn ku dugal programme mu ne deuxième tour léegi damay obligé débat am entre ñaari candidat comme ni mu amee France mm-hmm. pourtant war nañ ko mën a def mm-hmm. euh, CNRA supervisé ko ñaari candidat yi ñoo toog ñu am deux heures mm-hmm. Euh, secteur yëpp ñu teg leen fa ku nekk wax sénégalais toog di déglu yooyu loolu dafay màggal démocratie et pour man ay jéegaloo yoo xamante ne ñu ngi koy xaar suñu élection euh, suñu peut-être réforme ak suñu président yi di ñëw mais wàllum euh, programme daal je pense que de Sénégal. Je ah, euh, ma reste ak yow avant ñuy dem si Pa Moussa vraiment c'est nga xam sujet d'actualité. Mm. Euh, ce duo de choc euh, moi je dis vraiment que c'était, c'est que c'est un duo de choc Ousmane Sonko euh, Bassirou Diomaye Faye mu mel comme dafa changé xar politique sénégalaise bi. waaw xam nga toujours dama koy faral di wax ak mm-hmm. je pense que nous avons am de lu bëri wàllum science politique mm-hmm. wala communication politique mën nañ ko see jànge mm. am na yu bëri yoo xam ne feeñ na ci fii lañ fi gis ay candidats des candidats d'une candidature mm. des candidats d'une candidature mm-hmm. mooy Habib Sy ak docteur Cheikh Tidiane Dièye loolu Sénégal mosu ko woon a xam mm-hmm. ak Pastef ci lañ gis ñu dem élection présidentielle ñu jël benn candidat tëj ko ci kaso bi loolu Sénégal ba léegi mosu ko woon xam gis nañ ak ñoom tamit candidat boo xamante ne dafa ab bëggoon a bokk bokkul mu mm. am ku ko wuutu mu and ak mom mu doon benn duo ñom ñaar ñi battre campagne hmm. musu fee am ñi ñaan gis ne benn candidat kese moy dem motax mané yoy yépp yooyu dañu enrichir jeu politique bi té loolu bu ci duggé tay ji ku ci nek di nga ci jàngee hmm. tay ji dinañ tax homme politique bu commencé am ay ñol ñol ak yoon mu commencé enregistrer ay vidéo hmm. bu amee ay ñol ñol ak yenn commencé sur plan B parce que avec Khalifa Sall avec Karim Wade kenn gisuloon plan B ñom ñaar ñëpp dañoo dem ñu weñ seen loxo génné leen ci jeu bi out bokkatuñu. donc il n'avait pas de projet. amuñu waaw euh, gis nga tayji ñom au moins xalaat nañ ne ñun kat lii ñu yor ni budul man keneen war nako mëna def. Mhm. et lolu ñeneen ñi nga xamantene ñu leen di suivre ñu leen top war nañ ci mëna jàngé ba ëllëg mu doon lo xamantene tayji tey euh, du doon yifu man man man man man a man kessé la. Euh, lolu benen bi tamit buñ ci buñ ci buñ ci mën jàngaat mais seen force fi mu nekk mooy la personne de Ousmane Sonko. Mhm parce que pour man dafa dafa c'est un phénomène politique dafa liggéey lo xamanteni ci politique tey jii ah moom dafa liggéey lo xamanteni ci politique tey euh, pour man euh, jafe na un politique liggéeyaat ko fi hmm. je sais pas si je me fais comprendre. oui je je te suis. jafe na homme politique liggéeyaat ko fi. Mhm. parce que xam nga tax ma ma wax la loolu. Mhm. moi su fekkante ne tey amaana am na neenu parti bi doon bindoo est-ce que dégg nga ñu ne la benn secteur u Pastef nangam dem nañ fekki ji kële ba def nañ ko ban tëjee Ousmane Sonko. Mhm. wala ñuy bàyyi nañ ñuy dem est-ce que est-ce que gisoo ko. Mhm. te fii yeneen parti yëpp biñ leen jàppee faagaagal leen toll di leen tasaare ak yoroon militants yi dañoo jaar ni ñuy jaar ni ñeneen ñu waxatu mais ñoom da leen jaral ñii génn c'est-à-dire résistance boobu parti bi àndal. résistance ak dogu bi ak Pastef bi ñu àndal. loolu moo jafe ci politique. Mhm. te loolu pour man moo nekk seen force tey jii euh, ba à l'image de leur leader mu buux leen ko. tout à fait euh, Papa Moussa ce duo de